Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm yéen kaay yi ñu ko euh, dooree tey bokk na ci Walf Quotidien mi xëy amal taxaw seetlu ci ku jéeg politique bi fas yéene waat euh, yëglu ndax ay fan a ngi nii tekk tekkaaral la ñu amee ci géeg politique bi yéen kaay bi ne opposition bi bu weesoo F24 mi xam le ne juróom-ñetti fan ci weeru euh, maanaam septembre gi ñu ne daañu yëglu ci mbeddu Ndakaaru amal doxum ñaxtu ca place de la nation lañ koy dooree fi nga xamante ne mooy capital bi F24 ne li xew ci réew mi ci jaay dooleeg naka sudul noonu loolee la ñu bëgg mu opposition bi xam le ne itamit ci lu yàggatul daañu door seen ñaxtu fii ci ndakaaru ak fépp ci réew mi ngir fexe ba ñuy bi féete ginnaaw ci anam yu dëppoowul ak yoon ñoo ñooñee ñu muñ leen a may afiya ku demee ni Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen Walf Quotidien bi la yoon opposition bi bëgg nañoo jëmmal euh, seen bopp yor-yor gi di ñu dégtal itamit la xew ca Touba màggalu ren jekk gàllankoor askan wi rawatina taalibe ya fa newoon euh, ci amal màggal gu mucc ayib ndax taataa ndox yaak mbënn gafane y ñeent fukki milliards ak juróom yañ fa xaymaloon ne nguur gi dugal na ko fa wàllu assainissement koppar goge ba léegi euh, feeñagul euh, ci dundunu askan wi foofee ca Touba Mbacké ñàkkum ndox mu tar sax moom la askan wa yeewoo ca ndam di euh, dund mar nañu naan te gisuñu ndoxum naan jafe-jafe yi tamit wàllub mbënd mi jur na waxtaan gu yaatu ca Touba mel na ni nag jëru ngi ñu dénk wàllub kaaraange bi réew mi Antoine Félix Diome bëggut a dégg gokkule discours Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké jot na ko koo yeggee yor-yor ki kii moo ñu ko xamal yéen a kaabi di turbine ne ma nga woon ca Touba Mbacké Bougane Gueye Dany méttitlu na jafe-jafe yi nga xamante ne euh, taalibe yi dund nañ ko ca dëkk bu sell ba di Touba euh, ci nawetu ren ji Touba Mbacké moomu de daanaka fukki milliards ak juróom yañ koy xaymal euh, néew na lool 14 milliards fukki milliards ak ñeent ne tuuti na ci at mu jot ñu koy jox Touba nañ ko ful nañ ko yokk ndax Touba ku ko gis la muy dajale ci mbooloo ak koom-koom gàccee tukkee daanaka loolee war nañ ko mun a saafara Bougane Gueye Dany moo ni waxee wàllu kaaraange yi tamit eh, daanaka matewul ca Touba Mbacké Bougane Gueye Dany yemu fa dikkat na tamit ci li nga xamante ne eh, mooy lu aju ci eh, maanaam Touba cër ga ak gëdd gañ ko war a jox amul lenn loo xamante ne nguur gi war na ko mun a salfaañe mu ngi ci yéen a kaabi di turbine l'évidence ne njiital gëm sa bopp bugan Gueye Dany wax na ci tolluwaayu politiku Sénégal ak i tamit lu aju ci ñi caabi féete ginnaaw ñu duppee leen ay détenu politique ñooñee sàkku ci njiitu réew Macky Sall mu dawal yërmandeek njégal na roy ci Cheikhul Khadim mu ngi ci yéen a di l'évidence yenn a bi di le soleil mu ngi ñu dégtal ndajëb euh, gi jeexal màggal ren ji euh, di cérémonie officielle ci googu ndaje euh, xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké sàkku na jàmm ji fi ne ci réew mi nañ ko sàmm bokk na ci tamit màggal geek chantier ya nga xamante ne nguur gi soobu na ci ne dina ko matal bu ñu sukkandikoo ci jor ngi ñu dénk wàllu bi Antoine Félix Diome ma fa newoon euh, délégation googe nag lu toll ci euh, fukki réew ak euh, juróom-ñeent jot nañoo teew ca Touba Mbacké yonu tuuba bakkan ya ca rot tukkee ci accident toll nañ ci fukki doomi aadama ak juróom benn mu ngi ci yéen kabi di Le Soleil yéen kabi di Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kaddu yamu mu yëkkati ci njeextalu màggalu Touba Mbacké xam le ne réew mi ñu ne di Sénégal réewum diine la ak ngor sàkku na ci ndaw ñi ñu moytandiku li nga xamante ne Euh, mooy euh, fitna te xam ne euh, diine l'islam daanaka diine la gu xamante ne jàmm rek la la ko yëkkati bokk na ci jëflante ak balante ak sàkku na ko ci kenn ku ne na ko jëfee ci moromam yéen cabinet say muntaxa soñu na askan wi ñaax na leen yéen cabinet direct news génnagul Touba Mbacké téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition Magalu Touba Mbacké bila bekk na mu demee lañ ca jotoon a dugal ak itamit lu aju ci koom gi nga xamante Eh, moo génnee ca Touba eh, ñi ci eh, taalibe yi farloo ak limu doom yaadama yoo xamante ne ña nga woon ca Touba Mbacké yéen kabi dikkat na ci xalif général des Mourides sàkku ci askan wi ñu fexe daal ba itamit di baale di jégalante suñu biir mu ngi ci yéen kabi di direct news critique mu ngi ñuy dégtal li nga xamante ne nguur gi bëgg na ko def ca Touba Mbacké mu demee ni assenissement ñàkkum ndox mu mu ñuy naan askan wa ak wàllu paj mi Antoine Félix Diome ne loole jéego goo xamante ne nguur gi du ca deltu ginnaaw yéen a bi di source a xëy duñu dégtal yoonu Touba Mbacké niki démb ci bilan gu mujj ci ñafa jota faatu ci accident lim nga toll na ci fukki doomi adama ak juróom benn yéen a bi moo ñu ko yeggee ci yoonu Touba la ñu euh, ñu bari ci ñoom nag daanaka accident yooyu mu ngi tukkee ci route nationale bi fukki doomi adama ak ñett ca ñàkk seen bakkan yéen a bi mu ngi ñu dégtal waaju ci ñeenti bakkan yoo xamante ne rot nañu ca euh, autoroute ila Touba niki démb ci euh, talaata ji gi bokk na ci ab chauffeur goo xamante dafa demoon ba sonn ci dawal daal di jox apprentem chauffeur ba yëg ci porte bagage ba ngir noppaliku fa la daanoo euh, ci suuf daal di ñàkk euh, bakkanam mu ngi ci yéen kaab yi di euh, Source A yéen kaab yi di Le Quotidien ñu bari ñu ngi ñàkk seen bakkan ci mbëkk mi looco yi bëgg a dem ca bitim réew jaare ko ci yoonu gaal gi Barça wala Barsax immigration gu jaarul ci yoon yéen kaab yi ne lu toll ci wala boog lu jege junni candidat maanaam ci ay doomi aadama yoo xamante ci diirug ñaari fan jot nañ leen a dogale seen gaal yañu yeboon ngir dem ca bitim réew yéen a kaabi di le quotidien moo ñu ko dégtal Mamadou Lamine Diallo ñu fekk ko ci biir yéen kabi di Walf Quotidien mu ngi ñu dégtal jafe-jafe yi nga xamante ne moo tënk Sénégal nguurug Sénégal dafa laaj ci mbirum assainissement laaj ci wàllu njënd meek eh, njaay mi laaj itamit ci wàllu immigration clandestine yéen kabi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk ñaareelu tàggatu suñu gaynde yi ci stade Maître Abdoulaye Wade eh, gaynde yi ñu ngi waajal eh, seen match jongante laata Côte d'Ivoire 2024 yéen kabi di suñu lamb Modou Lo Boy mi nga xamante ne benn benn fan ceeru janvier 2024 euh, yéen cabinet derbi euh, Pikine ak euh, itamit parcelle Assainies lay doon lu ne mun naa tukkee ci googule combat ci diggante roi des arènes Modou Lo ak Boy Niang 2 mi daan yàggut Balla Gaye 2 yem ak fu ñu jeexalee xëtu yéen kaay tënk la woon incha allah dañ leen ko faram-fàcceel ca na mu gën a yaatoo ci xibaaru digg ci